asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu ngi fii ci Kaffrine mu nekk événement bi waa Sonko yi ngi baare yoon wi fii ci station Kaffrine dinañ ko oto yaa ngi nii taxaw kenn demul kenn dikkul ñu baare circulation bi gis nga ko ba ba ngay yeggee ci point ba fépp la gaa yi baare ah. waaw mbokk yi ni ma leen ko doon waxee sànq ba tey ñu del ci waat ci événement bi incha allah gis nga ko station bi actuellement ni gars yi kër yi nañ fi benn embouteillage police yaa ngi ne ngeen di seen ñii fay safara bi oto saporo nga ne ci ginnaaw di ñëw muy seen oto bu mag bi pour ñëw fay si safara bi li ko waral nak moy boy Sonko yi evenement bi elma police yi ngeen di seen noonu ñuy yegg ci oto bi noonu xam naa pour ñu def déplacement ñàkkut ne booy ñu ngi ci beneen côté gis ko président nañ pexe ba arrêté situation bi ñu ngi arrangé oto yi pour ñu dem benn par benn ndànk-ndànk